xaaj bu njëkk bi ci juróomi xaaj yi kolere gi nekk ci taalibe yéesu yi nettali bi mu ngi aju ci mbirum liggéeyu taalibe yi jëkk topp yéesu te bésu Pentecôte ba lu tolloog ñetti junniy nit gëm nañu li Pierre jàngale ci mbirum yéesu kirist ñu daldi tuub te nangu ne yeesu mooy seen musalkat noonu ñu sóob ci ndox taalibe yi di daje ngir déglu njàngaleem fukki ndaw yi ak ñaar laata yeesu di dem asamaan sant na ay taalibeem ñu jàngal ñépp ñi ko gëm waroon nañu jàngal ñi tuub lépp li mu leen jàngaloon waroon nañu xamle itam yeneeni dëgg yu leen xel mu sel mi di woon ni ko yeesu dige woon taalibe yi feesoon nañu ak xel mu sell mi xel mu sel mi di leen fàttali waxi dëgg yi leen yéesu jàngaloon mu jàngal leen itam yeneen dëgg fukki ndaw yi ak ñaar jàngal taalibe yi maanaam mbooloom yàlla mi dëgg yi ñu jàng dëgg yooyu lañuy ñuy tuddee njàngalem yàlla lépp li yeesu jàngale ak li xel mu sell mi won ndaw yi mu ngi ci mbind mu sell mi loolu mu ngi nekk ci xaaj bu mujj bi ci mbind mu sell mi tàmbalee ci téere rom ba ci peeñu mi dañu ko bind ngir nit ñépp mën ko jàng gëm ko te topp coobare yàlla li yàlla sant ay nitam du soppiku mukk li yàlla wax taalibe yi jaare ko ci ndaw yi mu ngi nu koy wax ba tey jii léegi ma laaj leen benn kan ma fàttali fukki ndaw yi ak ñaar lépp li leen yeesu jàngaloon bi mu nekkee ci àddina xel mu sell mi moo leen ko fàttali ñaar lan la xel mu sell mi jàngal itam fukki ndaw yi ak ñaar jàngal na leen mboolem leneen lu yéesu bëggoon ay taalibeem xam ko ñett ñan la ndaw yi jàngal lépp li ñu jàng ñoom ci seen bopp mbooloom ñi gëm lañu ko jàngal. ñeent lan la xel mu sell mi xelal ndaw yi ñu def ko ngir nun itam ñu mën a xam yéesu déggal ko topp njàngaleem te topp xel mu sell mi. xel mu sell mi xelal na leen ñu bind njàngale mi. mbind moomu mooy xaaj bi mujj ci téere bu sell bi